yàlla moom lu jot rek eh bien mu def waaw man ku ma waxoon ne tey eh bien Sénégal yi dinañ ma bàyyi fii bañ ma votel du ma ko gëm ndax lii dafa metti ak li ma def ci réew mi yëpp man deuxième tour bi damaa yéem comme que nag ñoom amuñu ñu ngi commencé di wax ci rajo yi ci télé yi kan Abdoulaye Wade génn dafa yàgg ci palais bi le 26 le 27 le 28 le 29 tey la 30 ah ñu bëgg maa baaxañ baaxañee nii comme ça léegi Lamine dama utal camion bu baax camion boo xam ne eh bien xaaral ma sax mooy feetal la paas yi boo demee ci euh, nu mu tudd fii euh, man fàtte naa sax dëkk bi boo génnee rek seetal camion bu baax bu baax boo xam ne dina mën a jël bagage yi nekk ci fii ak chambre à coucher ak yooyu ñu daal koy yóbbu waaw maa maa lay remercier bu baax dégg nga seetal ma sinjili tamit mu xool ay bagage am waaw voilà jërëjëf waay waaw yàlla moom mooy def lii rek waaye comme que man lii bien lii ngeen lii lii laa leen lebal lii ngeen may fay yéen sénégalais ak fi ma jaar yéen man wax leen ndax dama ay gaaf raawe ma gaaf yéen xam ngeen ne lu mu dee dee dee ak sama eh bien euh, deux mille bi ma ñëwee deux mille deux eh bien coupe d' afrique dem ngeen fa yóbbu naa leen coupe d' afrique eh bien yóbbu leen coupe du monde kon diggante moo leen waaye yii nga xam ne eh bien moo am ci diggante bi man maa ngi soog a xam ne li daloon Abdou Diouf moo ma dal ndax Abdou Diouf waxoon nañ ko fi ne bés eh bien euh, ndax xam nga ne. nu mu tudd ci la ceeb ñaata lay jar moom sax nee na xamu ko mais yooyu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk warmaal la ñàkk warmaal la léegi nag yàlla def na man maa aye ñu toroxal ma nii eh bien def ma yi ñaaw yi waaye yàlla waxul kenn daal moom balaa ñu may eh bien dinañ xam ne du ma fi demee noonu ndax xam naa ne ku ma toogaatee ñaari fan ci pale bi rek ñii ma dégg avion ñuy wax ci rajo bi ak ci télé yi ma fi génn avion yi jéem a du ma ko nangu waaw waaw yàlla yàlla moom waxul kenn dara hmm. Sénégalais moo mel nii rek dañ lay fal ba nga yaakaar na yow avion ñu folle su ko defee hmm. yàlla moom waxul kenn dara ah, Voilà. Voilà. allo. Yaya Jammeh. waaw yaa noo man la Ablaye Ablaye Wade bu Sénégal nga ah man dama doon woo rek di la xamal ne ndax eh eh, eh, waaw foofu ca Gambie ndax amoo fa place bu baax boo xam ne des fois ma jaar fa noppalu ko dama doon yëg ne tey laay génn nga ne ma jaar ci protocole waaw yow moom yow <laughs> yow yaa yow teel ngaa teel ngaa kii de nga fa laa jaara ci protocole maa ngi lay woo depuis présidence génn guma kat nga ne ma jaar ci protocole yaa jaama yaa ma loolu yow waaw ay mooy xool fi ñoom sax nee nañu tey bi tey nañu bëgg ma génn ci pale bi waaye waaye l'état actuel de votre crédit yow wax nga ba jeex na ci waaw hmm. ma seet beneen bi fee yàlla yàlla mbiru yàlla kenn xamul lan la voilà wax yow ma ne la man kii crédit bi jeex na xaar ma delluwaat ci national bi waaw Sarko Sarkozy allo si Ablaye Wade Ablaye Wade président Sénégal mais c'est pas quoi je me suis trompé ah voilà hôpital Dantec mardi jël samay bagage bëriwul yëpp ay waaw ma xoolati yii de mooy yi ma doon ci àdduna yii de bu feeñoo du baax xaa ah, ma def ko fii yii moom ëpp naa bàyyi ci kaw voilà ñoom daal bu ñu xaw ma dañuy auditam déet xaw ma eh fas yéene def waaye fii daal duñ fi gis dara loo xam ne eh bien lu yàq der la waaye ah oui sëñ Yile sëñ Yile ah, doole gu ma wootee sax laa amatul yoo ah, ba bu njëkk ba da ngay taxaw rek ñoom ñëpp ñu ñëw Bruno Lamine ah oui ah. fii de daa doon soog ak gor ñi ñoom sëñ Mbacke Ndiaye ñuy toog di wax rek waaw ah. waaw maa ngi dee kat <laughs> man kon génn naa pale bi nii rek woy sama ah te yàlla yàlla de yàlla moom eh bu la waxee ne bu la ne folle na la rek folle ah man damaa est-ce que tëdd sax xañ na fi. takk commencé takk samay bagage ndax ñii xam naa ne moom ku leen ku fi xaar moom dañ lay torox dañ lay toroxal Macky Sall moom du rof yi waaw sënjëlee sënjëlee duma dégg moom léegi interphone nga doon wax rek ñoom garde corps yëpp dem nañ ñoom ñëpp dem nañ koo ci woo sax danaa la damay nekk ci sama bu dul sama jarbaat bi Lamine doo ci gis kenn Lamine Lamine eh bien Lamine waaw Bruno Diatta te yàlla ngóoru yàlla de moo dul jeex kon yàlla de moo dul jeex kon ngóoru yàlla moo dul jeex ko ko ko eh lal ba mu <laughs> yii de Sarkozy ma ko jëndal Sarkozy ma ko joxoon ndeysaan dama fa demee mooy bicentenaire française mu daal dama papa ma ne naam mu ma da nga fekk mu sedd waa kii teg kaw ndeysaan moo ko koy xoole ca yàlla bii moom <laughs> bii day dana sasu nga so moo ma ko joxoon ñaw congolais la ne ma Ablaye di yëpp fàttali ko yàlla baax na te lii moom kenn xamul lan la yëpp laay takk yóbbaale moom la su ko defee rek yóbbaale takk yëpp déedéet demal junne laa ilaaha illallaah yàlla moom waxul kenn dara loo gis rek dafay jeex voilà alors waaw ma dige waaw foo la nekk ñoo ma ci bagage yaa ngi ndar baax na yàlla ca yàlla waaw Farba foo ne waaw ñëwal léegi ñëwal yaa ngi ci ginaar yi waaw bàyyil foofu kii dina ko toppatoo ginaar yi bëriwul woon te deux cent cinquante ginaar la woon kay waaw waaw yebal rek takkal ci mbuus rek soo mënee jaay ginaar junni baax na mënee ginaar yooyu doo gis fenn waaw sax si ma ko fi bàyyi woon yaa ngi koy fàttaliku waaw gaawal te ñëw jàpp ci bagage waaw suñ jëlee sànq ba tey maa ngi koy wax xam nga sama baat bi mënutul jóg ci kaw suñ jëlee waaw waaw gaawal ñëw yàlla moom waxul kenn dara moo ko yàlla moom waxul kenn dara yooyu yëpp day dem duma fi bàyyil Macky Sall dara laa futul bàyyi lépp laa yóbbu ndax fa may dem dëgg dëgg voilà gan lépp laa dul wooteel dossier yi moom ëpp naa bàyyi dossier yi moom ëpp naa takk waaw yàlla Voilà. ah yàlla moom waxul kenn dara ngeen baal ma laa ilaaha illallaah su ko defee balaa may génn réew mii nga xam ne mooy Sénégal dañuy jàng baadoola rek di ma wan ne nawet bi man dañ maa jéppi ñetti fan ma fi dese xam nga juróom-benn ñaari ñeenti fan. article quarante cinq eh bien décret deux mille douze loi quarant quatre code pénal eh bien vingt sept moi le président. man Ablaye Wade moi le président Abdoulaye Wade eh bien j'augmente j'augmente yokk naa ceeb bi ci bésu àllarba bi eh bien ci bésu àjjuma ji yokk naa ceeb bi ci bésu àjjuma ji kilo bi trois mille quatre cent cinquante hmm. trois mille quatre cent cinquante la kilo bi di jar maatam eh bien non maatam junni kilo ceeb junni bu dee maatam nga dëkk fan lañ ma daal ci Sédhiou kilo ceeb Sédhiou defal sept mille bu ko defee eh bien balaa ma fi jóge xiif xaw leen a ndax li may dal nii ñoom tamit il faut mu dal leen Sédhiou ci la ceeb 7000 Dakaaru Njaay li ko dalee Sacré Cœur eh bien jëppal waagu ñaay <laughs> waaw waagu ñaay waagu ñaay waa Médina ci la ceeb bi jekk ci 10 mille 250 ci la ceeb 10 mille 250 signé ko accordé par l'État de grâce allo waaw ministre du commerce waaw wool euh, journaliste ne la ne bien yokk nañu ceeb bi bu dee dakaar la kilo bi ñu dikkee sept mille cent euh, dix mille cinq bu dee Sédhiou sept mille cinq cent et eh bu dee ci Ziguinchor cinq mille waaw côté Thiès moom kilo ceeb bi ñaara junni waaw man ne des na ma fi ñetti fan ba tey président la man kay balaa may génn ci palais bi waaw waaw maatam kilo ceeb bi maatam ñoo ma gën a toroxal defal kon defal maatam ci loo ceeb ñetti junni d'accord waaye yow ma ne la ñetti fan ma fi dese def ko rek ñetti fan yooyu nañ ko ñamandoo man ma ne defal li ma la wax waaw ok Lamine Lamine Faye ndeysaan yi sax tegul suñ ma xaaral ma ci yàlla de yi sax bi ñaan soo xol leen ko Macky Sall danañ teg ma ngay wax kii de kii ngeen may jënde yéen man ay kii ngeen may jënde yéen xanaa xool leen ak fi ma jaar yéen ah yéen Sénégal tamit am na loo xam ne doo ko def mag doo ko def mag ndax lii ngeen ma def nii eh bien xool ko ma nga ca télé bay wax jàppee na boppam président te te dese na ko ñaar <laughs> ñetti fan j'ai pitié <laughs> cette fois li fi fekk yo lii ngay fekk fi mala la fi bàyyil billaay di nga xam ne ne eh, mag kenn du ko eh bien ruux waaw voilà léegi su ko defee dossier yi nga xam ne moom mooy dossier ANOCI kii de bu ko Macky gisee sama doom ji dee <laughs> kii de bu ko Macky gisee sama doom ji dee ANOCI ANOCI ngi noonu monument de la renaissance laa ilaaha illallaah waa yow madame Mbaye waaw madame Mbaye yow nan ngay mën a bàyyee sama bureau dossier euh, monument de la renaissance nga xam ne ay milliards la maa ngi ni dossier ANACIM yaa ngi ko bàyyi fii waaw loolu sàggante warut a tax ndax yow xam nga ne bi ma nekkee président yooyu daaw loon dal waaye nga paxar paxaree di comme ça noonu waaw bu mu amati ah. lii de mooy <laughs> lii buñ ko lii moom bu ko mag yi gisee réew mi ci boppam ñooy génn ci man kii mooy sëriñ si nga xam ne eh daan naa leen jox tuuti montant waaw kii kii de benn waaye lañ ma ko fi indiloon jox naa ko quarante quatre millions quatre cent soixante quinze ndeysaan xam naa ne ma ngay ndaataata la waaw mouvement des femmes libéraux xaw ma dañuy wax rek ñun dañ ma nax trois cent cinquante millions pour la femme les femmes du diaspora xam naa sax yëguñu ne jox naa leen lii yëpp moom ay dossier la yoo xam ne eh bien dee su ko mën a napp lii waaw nga leen xoolaat laay laay la la li lii moom lii moom naka jekk ma noonu ko doon seet ay ati ngi nii waaw voilà lii moom yëpp day dem jëm ko dugal ci bagage yi bien su ko defee yii moom dama koy taal rek moo demee ba côté ngay cokkeer taal waaw waaw ñi nga xam ne waaw lii ñaari fan yëpp maa ngi koy seet ñi fi ñëw ma jox leen xaalis yëpp laa ilaaha illallaah Souleymane Dena Ndiaye lan lan lan ah waaw waaw lii moom lii moom bu ko Macky Sall gisee lii moom gis ko rek mooy La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah eh bien nous les xawma lan facture plan tàkkal ye kii moom ëpp naa wane kii moom ëpp naa wane Macky Sall du gis dara dara dara dara yëpp laay taal waaw yooyu yëpp na bokk ci bagage yi waaw la ilaha illallah te yàlla te moom yàlla rek ko waaye day lenn naa la ko xamal ku ma waxoon ne bien bés dina ñëw man maître Abdoulaye Wade man na ci diggante tolof tolof goo xam ne lii dina nekk wa moo yéen waay laay la réew mi day adduna gaaw te tëra di yàlla moo mën lii yal na yàlla mosal ci ci ci ci ci maa ah, lii de xaw ma fan laa koy waxee ah. allo waaw Lamine foo toll yow tamit gaawal ci camion yi am na yoo xam ne kenn du ko du ko ay ñii ñii di ñëw xam naa leen dañoo yàkkamti loo gën a yéex rek eh, mais ñoom ñu gën a gi xanaa motaar yi ñu la dañoo bañ waaye léegi man damay joxe ordre sax et bien ñuy bañ man maa ngi ci palais bi génn gu waa waaw gaawal te ñëw waaw